mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu ñu ngi ziar ñëpp ah. di ziar ñëpp sénégalais yi nekk fii ak ñu nekk bitim réew diaspora bi parce que làmb ñi moom booy xool li muy wéttali diaspora bi bëri na trop dañuy jot seen message dañuy jokkoo ñoom ci lu bari bari moo tax à chaque fois rek dañ leen di beral nuyoo surtout suñu xarit ya fa ne na trop trop trop ba na sax ay mbër yu nekk foofu yuy laaj mbër bii ma toog ba ba tey ci suba rek xam naa <laughs> naa ko wax xaw ma xam yëg nga ko wala yëgoo ko. mbër bi temps moo xew moom la ñëpp di laaj li mbër lii Youssou Ndour daan wa daan wax yaa daanu mel ni yaa daanu loolu la ñuy ah. daanu mel ni yaa daan <laughs> <laughs> soq dafa mel ni yow yaa daan yow ah, sant yàlla loolu laa doon nuyoo loolu laay nuyoo ñëpp di nuyu sama caméraman bi bienvenue ah gan gu bees la wàcc bees la caméraman bi mm. suñu wàcc bees la tey day door a commencé daa ñëw rek ma ne ko man maa la njëkk a génn tey <laughs> ñu ngi koy ziar bu baax a baax ndaw di nuyu ñëpp ñu ngi seetaan alors invité baa ngi nii gan baa ngi nii man moo ma invité sax moom laa seet si naa la bàyyi nga nuyoo yaa daanu mel ni yaa daan mel <laughs> xaw ma nan lañ koy waxee daanu mel ni yaa daan nuyool man loolu laa lay tuddee léegi. waaw alhamdulilahi rabil alamin mhm. di wax onze billah la bisimilah inna yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. jërëjëfe Serigne tuuba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaw ñu ngi santaat Serigne tuuba bu baax a baax a baax a baax di sant suma yaay bu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér yaram di santaat suma yaay bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal wér gu yaram ak gudd fan. xam nga di ñaanal suma papa fi mu tëdd suuf sedd ci kawam. di ko ñaanal doomu aadama yi dëdd yëpp. Mm. ku ci mel ni suma frère Zil Balde Junior. ku ci mel ni suma frère Papa Yade ku ci mel ni Moussa jum ku ci mel ni Moussa Balla Gaye comprendre ko ku ci mel ni Akon mi fi jugee barki Dembo Ndiaye di ñaanal suma papa Moulay seen di ko ñaanal suma grand frère mbay seen di ko ñaanal aadama xam nga suma copain Dame ñooñu ay waajuram lañ waaw ñoo làkku depuis boobu ba léegi tamit xam nga yàlla dogal ñoom ñu ngi ci di góorgóorlu te kàttan bi demeewul noonu moom daam suma xarit ak mm. Pape Sarr ñoom mbay seen ak ñëpp xam mm. ñu leen di ñaanalaat baax di ñaanal suma goro yaayam ak papaam bi génn àdduna muy suñu papa <coughs> Bura juuf mm. ak suñu yaay Ndéla juuf comprendre nga ak suñu papa Dut Touré maa ngi koy ñaanal tamit suñu borom xaare ko àjjana ak suñu mama Fat Ndoy ak képp ku dëddu rek ku suñu xel daj ak ku suñu xel dajul ñu ngi leen di ñaanal fi ngeen nekk gënal leen fi ngeen jugee ci barke yonent bi te yàlla jégal leen seeni bàkkaar di ñaanal ñi si kaso bi nag yàlla delloo si waat leen ci jàmm ndax bari naa fa ay xarit ku ci mel ni ay Ousmane xam nga ay ñoom Seydou Ba bëri na ñoom suul ñoom Birahim ñoom Petit suma gars yi ñoom Paata Balde ñëpp maa leen di ñaanal jàmm. di leen ñaanal ñu dellu si ci jàmm. Babacar. di di la jaale waale ah. après combat bi ki nga xam ne Pikine la dëkk. mujj ñàkk ci bakkanam tamit ñu ngi la koy jaale di ko jaale waa. Pikine waaw ah. surtout surtout surtout Cisco. démb rek dem nañ këram man ak Ama ak Boy Niang. Mhm. xam nga dem jaale ji ay mbokkam. Mhm. parce que suñu frère la. Mhm. te suma gaan la. xam nga kon xamante ngeen woon xamante nañ bu baax. bis bi jaraloon ko lu nekk. fi nga nekkoon quoi mooy bi nga àndee woon ak ñoom Boy Niang doon jaale ji waaw waaw ñu dem fa xam nga jaale ji ay mbokkam. Mm-hmm. parce que suñu fereer la. Mm-hmm. ñu ngi koy ñaanal. Mm-hmm. suñu borom mi dara tëwul. xaaree ko aljana ci barki yonent bi. parce que si journée bi la ko lool dalee. te ñun ñëpp ñu ngi woon ci stade bi. li ko dal noonu ndogal boobu munoon na dal suma kaw munoon na dal ci kaw. munoon na dal na dal ci kaw adversaire ci kaw. supporteru Franc hmm. kon tey ñu ngi ci woo ñëpp hmm. képp koo xam ne yaa ngi déglu suma kàddu bii rek hmm. ñu ñëw ñu dem ñu ñaanal ko suñu borom jéggal ko ay bàkkaaram te xaare ko aljana ci barke yi kon miinante ngeen woon yow ñaar yéen ñaar nekkul woon nii benn supporter boo xamul quoi xam non non non wax dëgg fa yàlla nag xamante nañ bu baax suma waay la te c'est pas la première fois sumay combat mu ci daj coono ba ci ay parent am ñëw ko seede combat ambourage bi passé dimanche bi rek amul lum ci deful waaw mais xëy na tamit yàlla. Mhm. jour boobu la ko doon xaar. Mhm, mhm, waaw ñu ngi koy ñaanal bu baax. loolu moo nekkoon bësam. waaw moo nekkoon jour xaritam la doon xaar jour boobu la waroon dem. mais loolu personnellement yow est-ce que am na lum la def koo xamante ne say nit say supporters même ñoo xam ak ñoo xamul yëpp di daj si yow coono am na lum la jàngal jour boobu. non waaw man moom. Hmm. sama làmb moom boo bëggee dégg dëgg pas Maguette chaque hmm. jour jàngat la ci man quoi. Hmm. ndax yaakaar naa fii keroog bi fii ni mu meloon rek waxuma estat fii ni mu meloon nga fii bayal mais mm. keroog nit ñi xaajuñu fi mm. waaw keroog nit ñi xaajuñu fi man rek bi may génn fii dama am sérieux problème pour génn fii nii mm, kon man sax sama làmb rek dafa am lu mu may jàngal te man nu ma mel rek man pour man nit ñi bëgg nañ ndax tey keroog bu ñu jàppee ni Sokh mu ngi ci tolof tolof keroog boobu laay gën a gis nit ñi loolu nag dama koy sante suñu borom te xam ne man taalibi suñ Tuubaa la euh, du def lu ñaaw te du ko wax amul képp kenn kuy taxaw ni soo ko mii nii mos naa jàmmoorloog man ñuy xoolante ma def ko lu ñaaw mm, mm. lépp lu nit jàpp ne dama ko def lu ñaaw rek peut-être lu ma yëgul mais ma xool doomu aadama am lu ñaaw ci moom wala ma yéene ko lu ñaaw wala ma war ko def lu ñaaw man soo ko xal mosuma ko def sama mm, àdduna te ñëpp jox naa leen cër moo tax bu ma xew xewlee noonu lay mel saa veut dire que yow say combat dafa mel ni ki chaque combat da nga ciy màgg da ciy am expérience ma daan ak ma ci yem da nga am expérience sama combat man damay gën a jaaxle. Mhm. parce que damay gën a gis doomu aadama yi damay gën a gis taxawaayu doomu aadama yi mhm. Mhm. damay gis ñoo xam ne ay mbër lañ sax barki alxuraani karim takk seen digg fàtte ni ñoom ay mbër lañ ngir su ñoo lay gën a bëgg bis bi ñoo may gën a bëgg bis bi ku ci mel ni alaaji say booy jolof combat bi dënk dama koy mujj sax yërëm man tey mbër yi nekk suñu écurie booyu ndaw yi ñoom fils de leen Batista ay tas yaakaar ay dara bari na ay ëmma junior ay zoro ñoom Naar Fall ñooñu dama dem sax ba mujj gi man damaa fàtte sama bopp di leen yërëm. Mm, mm. mel ni ñoom ñoo war a bëri coono bi ñu ci daj. waaw ñooñu aw ma seen fay. Mm. te maa ngi leen di santaat bu baax a baax a a baax a baax surtout booy Jolof. Mm-hmm. Alaaji Sey maa ngi koy santaat bu baax. waaw su ma waay te woon na ne ma su ma waay la. rawatina waa pikin bi dafa mel ni que ñoom dañ la gën dañ dañ la yenn combat bi. waaw parce que dañu ñëw gën lu ko bëgg Pikine laa la wax waxuma la mbëru Pikine mbëru Pikine moom dama leen teg de côté mais waa Pikine bu ma nee waa Pikine rek wax naa ñëpp gars yi dañu ñëw gën la bëgg bés bi ba teg la sax yow dañu la sax indil problème yow. waa looloo tax nag essence yi ma amel leen bor <laughs> amel naa leen bor bu rëy. Mm, mm. ndax dañ ma sas. Mm. te keroog. arène nationale ku fa ñëw xam ne sook gox bi mu dëkk bëgg nañ ko te ñu ngi koy bàyyi xel. dangaa bind histoire yow ak Franc. waaw nee nañ bi yaa ko njëkk feesal bañ ko bañ ci dugalee 32 milliards. waaw yéen a yéen a wane lan moo tax ñu def ci 32 milliards. waaw duy ko ba mu fees bañ tëj buntu ya waaw loolu moom waa Pikine laa koy sante waa Pikine maa ngi leen ciy sant bu baax. di leen wax ni leen amel naa leen bor bu rëy rëy te incha allah rabbi bor boobu dinaa leen ko fay ci côté ci manière bi ñu ko bëggee nag. ci moment bi ko soxlaa laa leen koy fayee. parce que combat keroog bi combat woon boo xam ne ñaari xale yo tollu ci déclancement la. Hmm. kenn ay dem. keneen ki wëriwaat ko. waaw comprendre hmm. ginnaaw yàlla Franc la ko jox maa ngi koy félicité di ko encouragé di ko ñaanal ndam li jikko. Hmm. te dem boobu mu war a dem mu nekk ci champion. wax nga ko ko ci téléphone. waaw non wax wax bu rafet nga yéene ko ñaanal nag wax dëgg fa neex yàlla parce que tamit. du mm. sama ennemi. dañ doon xëccoo loo xam ne suñu borom moo ko dénk. Mm. dama ciy rafet rek. Mm-hmm. santaat ci yàlla bu baax ndax yàlla mi dara tawul moo ko yéen ñaar li li yi di wax allah kulli aali la woon il fallait que ngeen njëkk ko daje. non mënut a ñàkk parce que période bi champion yi tolloon pour bëre lañ tolloon mm-hmm. maag moom mm-hmm. ñu bëre. man ki ma daan nekkul ku kenn amul ci moom yaakaar ñëpp am ci moom yaakaar ah, mm. kon bu daanee Sokh war na mm, mm. maa ngi koy félicité di ko ñaanal ndam li jikko di ko ñaanal xam nga bonne continuation mu doon champion ci lamb te li ñu si gën a neex sàng da nga wax lu am solo bi ngay commencé face à face yi ba lamb ji jeex dara ñaawul seen ñaar ba si yéen te jaay ngeen combat bi combat bi réussir na kenn gañe na kii dem na yoonam ba tey affaire bi gën a rafet. Mhm. non dëgg la. exemple ngeen si yeneen mbër yi ah. parfois pas magat gars yi dañuy jaawaatle jaay làmb. Mhm. ak wax lu ñaaw. te mhm. jaay làmb ak wax lu ñaaw jotewul dara. maag Franc jaay nañ làmb ji ba àdduna yëpp taxaw. te saagaw ko saagaw waxuñu ñu kenn di xeebee ci télé xeexu leen du ci signature yi du ci dara mhm. maag moom bi ñu taxawee ci digg géew bi mhm. dama koy def li ma koy def mu jàkkaarloog man ma jàkkaarloog moom mu may def lu mu may def mhm. ñuy kaf di ree maag moom ba nit ñuy bëre ñu ngi kaf di ree ah waaw parce que loolu la bu ñu waree bëre dañuy bërante ba arbitre sifflé pour suñ diggante kuu yi daa tax waaw que man dama dépassé ci làmb fu may wanee ñàkk fayda man ma ñëwee ci làmb damay def jom def fulla def fayda mais suñu borom bu ma xañee damay dellu santaat suñu borom. parce que doomu aadama laa te jaam laa bu xeebu dong. Sokh est-ce que mën nañ wax ne léegi sook mbër bu mag la. non non mënaguñu wax ne sook mbër bu mag la. même bu ko dee wax man Sokh du ko gëm. lan lan moo tax gëmoo parce que lu tax du ma ko gëm gis nga mbër mu mag da ngay hmm. yeewu sa kër tiim la. nga gaare kat kat ci buntu kër gi. Hmm. banque bi fees dell ak xaalis. <laughs> ngay dem ak di ñaw ngay faj soxla lépp tranquille sa xel dal quoi sa xel maire bi am maire bi. dem nga yóbbu ko màq yooyu xam nga ma fekk nii mooy suma kër yaay. Hmm. man fi ma dëkk dama ci fier. waaw. Hmm. te dama fier ci suma famille. Hmm, dama fier ci sumay papa. doo complexe. suma papa ngi nii toog. comprendre nga. kon awma lenn loo xam ne tey dinaa ko am lu sut sumay sumay waajur. tey munoon naa la yóbbu fu ma neex. yóbbu man sama kër. bien meublé def lépp. yóbbu la feneen ak feneen. mais gis nga suma kër yaay bii. xeebu ma ko fii laa am ba keroog yàlla li muy dogal ma tabaxal ko kër. mu ne ci noonu fii nga tàmbalee ku fekk fekk ma ci palem. lii mooy noble lii mooy noblesse ñaan naa yàlla tabaxal ko pale. lii mooy affaire noble. waaw ba tey ci location la nekk amiin yaara bi te xam naa ne man may gladiateur bi nga xam ne maa war a rayante <laughs> tabaxal ko kër. am na it aussi sumay frère yoo xam ne tamit ñu ngi ñefe di def. lu am na kenn koo xam bu ko tudd. waaw non dina mu nga tudd ko. non non non non. <laughs> jërëjëf ko tudd sama <laughs> non boo tudd sama émission. dama la ko ñaan. <laughs> kooku sama micro ak samay caméra sama image dara bu mu ci feeñati. jërëjëf sa xarit la woon maa la kuraa maa la kuraa. sa xarit la la kuraa yow yàlla na nga dajeeg Donald Trump moom nga xam ni bopp bi day dëpp mu mbéj la. jërëjëf yàlla nga dajeeg Donald Trump mu mbëkk la. noonu la demee quoi te ñun ñëpp xam mm. Mm. dañuy ñefe pour mère bi mm. dañuy ñefe pour parents yi dañuy ñefe pour suñuy frères ak suñuy sœurs pour situation yi changé te bi ñu nekkee xale ba léegi wax dëgg fa yàlla ñàkk ñu jom mais est-ce que gëm nga ne incha allah da koy am non loolu moom xeluma ci ñaar sax maanaam xam la moo dam wala lool mm-hmm. am nga la am nga fayda yàgg nga def loolu tey mm-hmm. si loolu ngay dox mm-hmm. loolu moom sook loolu moom nañ ñaan yàlla yàlla may ñu gudd fan. waaw loolu rek loolu meer fekkee paa bi fekkee. ni ñëpp fekkee incha allah gudd fan ak wér rek la ñuy ñaan parce que gënoon na métti démb. Mhm. te tey ñu ngi koy jaayante ba tey. Mhm. xam nga mhm. sant yàlla quoi xeebu ñu lu ñu suñu borom jox ñu ngi sant bu baax. léegi damay bañ foofu noonu man xam man dama gaaw a émotion man dama gaaw a génn gaam quoi. nañu fàttali turu boobu. li ma lay njëkk a laaj mooy que ne. yan erreur nga def ci combat bi man pour man def nga ñetti faute. ñetti faute yoo xam ne action sur action la def naa erreur moom waaw ndax ku deful erreur ci làmb du daanu. non boobu il fa lekk kenn def erreur. pour kenn mën a daanu loolu la rek comme maa waroon a daanu. xëy na ma def da nga waroon def erreur waaw waaw pour daanu. léegi bu njëkkal wax benn bim bi nga bi nga jàpp ne man xëy na jàpp naa loolu. première erreur bi ma def. waaw mooy dama doon xeex ak Franc. Hmm. sama xeex ak moom teg sama garde xeex ak moom. benn mooy première. waaw deuxièmement. Hmm. Franc bi mu dawee song bi mu bi mu attaqué déclenché. ma daw juwaat loog moom. dama waroon a ensonné bu bëri mais dama ko bëggoon a képp teeku ko mu fudd. deux muri tax. Hmm. troisièmement hmm. bi mu dawee yegg ma fi mu may yegg. waaw waruma woon déclenché action man dama waroon a rasu bëre pour yokk ko pour. défendre mooy tànk bi nga def nii sama tànk bi ma bi ma boobu amoo woon équilibre. pour dóor ko tànk. waaw fa dara fekk ma fa dara mais li ma ñaar li tax ma ñàkk fa fekk dara. Hmm. mooy tànk bi ma waroon a dóor tànk moom Franc dafa fekkoon nu sukk ko. sukk bi mu sukk nag moo waral sama tànk romb bi sama tànk rombee fekk moom li mu ŋoobu ci sama ngem bu bari na ba pare étonome mu xaru ci te boobu yow automatiquement yow techniquement tactiquement bi ñu ma jàppee yow sa xel ci loolu la demoon sama xel ci loolu mais sa xel bi mu demee foofu nag fekk fa loolu fekk fa loolu parce que man Franc xam naa ne bu dawee boot sa wet boo koy mbot foofu fooram la. waay léegi dama xàcc wetu mel ni ku mm. koy mbot. waaw ba mu jël poids am yëpp teg ko fii. may gëstu pour dóor ko tànk bi may mm. gëstu pour dóor ko tànk. fekk mm. moom tànkam da koo sukk. nga manqué équilibre ba pare yegg na ma fu mu ma war a yegg tëdd sa kaw waaw yegg si. Ah, bi mu résister foofu fekk c'est trop tard. Mm-hmm. waaw ma teg sama tànk mais technique ngeen bëre non waa combat bu technique. parce que yow réflexe boobu nga am tànk boobu noonu c'est c'est c'est technique. bu technique lañ bëre. parce que li tax ñu bëre combat bu technique. Mhm. xëy na ñaari xale la yoo xam ne. Mhm. am na luñ mën ci bëre. Mhm. te ki ma doon bëreel ndaanaan la mhm. champion la wax naa ko fépp ci mhm. première signature yaag yu mujj yi mhm. ndax tey nangul ko ndaanaanam terew maa doon ndaanaan comprendre nga man am na lu ma mën ci bëre am na lu mu mën ci bëre ndaanaan mooy daan ndaanaan waaw waaw noonu la demee yàllaa dogaloon ni Franc moo may daan daan na ma maa ngi koy ñaanal ndam li jikko xam nga te maa ngi leen maa ngi xooli leneen mais dafa am lu ma lu ma lu ma lu ma marqué woon ci seen i sorti surtout yow sa sorti danga ne ko bis ba nga may jox cër mais argument yi sook amoon ak soq li mu wóoloo woon boppam sooku loolu lan la woon man dama ne woon sax soq est est hors de lui maanaam soq nekkatul moom. instant mhm. mbër mbër laay gis dëggantaan. Mhm. koo xam ne un combattant bu gëm ne kii damay jàkkaarloo moom def ko li may def def sama yoon man looloo ma yéemoon man. waaw cër bi ma bëggoon mu jox ma ko jox na ma ko. parce que bi arbitre bi sifflé. Hmm. moom taxaw na def tekk. waaw round d'observation. xam ne kii may bëreel. Hmm. tey comme li ma ko waxoon rek. buñ simee ko maag moom ba taxaw hmm. maanaam li muy wax noonu ci wax lay yem rek hmm. Hmm. mais buñ simee ko maag moom ba taxaw dina ma jox cër te ba arbitre bi jox na ma cër ndax dafa taxaw mu déplacé wu ma déplacé wu ma ni tekk mu ne tekk deful dara te boobu manit li nekk sama yaram di xasan munu xaar kenn munu ma woon xaar kenn keroog kum doonoon ci bis bi munu ma la xaar gars yi wax nañ xaaral Franc déglu ko ba son mais moment boobu noonu du moment bu may xaar parce que man damaa nekk nit koo xam ne man su ma paree dëgg billaay du ma faale lu mais est-ce que xadar andiwu la ak yenn combat waaw mooy li may wax man bu ma bu ma bu ma paree dëgg waaw préparé benn mbir mu ñor ma ba ma pare ci dëgg li lay maanaam du ma am du am patience du ma am xaarukaay mhm. damay bëgg rek nga ñëw ñu dalante ñu jëflante ba ba ba mbir mi féete boor mhm. xëy na loolu la mhm. mais du woon dara wax dëgg fa yàlla ñëpp jàppale nañ ma combat bi ñëpp a ma si jàppale ñëpp ñëpp. ñëpp ñëpp techniquement techniquement techniquement waa Pikine ñëpp a amul amul bu ma manqué dara. Hmm. ci côté yëpp nag lañ ma jàppale. Hmm. ci côté mystique. préparation am naa ci taxawaay. ci côté entraînement bu baax am naa ci taxawaay. ci côté préparation bu baax am naa ci taxawaay. ci côté dëkkuwaay ak ak bëgg lépp ci làmb ji am naa ko concentration lépp ndax keroog ku ma xool arène nationale xam ni soq mii même bu doon xale la di ñëw ci làmb léegi nekkatul xale non keroog moom da nga meloon ni genre Yékini yooyu waaw voilà ñëw ñëw ci làmb ji quoi waaw noonu la dama gis benn mbër bu màgg ci digg moo tax sànq may la mm. est-ce que nangu nga tey ne sook mbër bu mag la parce que bés bi tamit am na lu mu la jàngal parce que bésu sook ak franc du bés bu ndaw. waaw mais xam nga xam nga tey boo gisee ma bañal la loolu. Mm. mooy xale du teel a nangoo nekk mbër bu mag. Mm. te xale laa ñaan war naa def lu ëpp lii ci làmb li des ci sama làmb mu ëpp fuuf li jàll man xale bu ndaw laa juddu sax defuma ko mm, mm, mm. xëy na nag teel naa nekk responsable teel naa sob teel na dugg ci lu bari xam nga lépp rien que ngir suma famille rek parce que bugguma fee nekk di xale xalelu parce que boo fi nekkee di xale xalelu tey ñëpp meer di la xaar ñëpp di la xaar nekk fi sa bopp xale yëfu xale ci nga <laughs> waaw te dëkk ci loolu dañoo bëgg a teel a Mm. réussir si live bi li ñu mm. bëgg suñu borom teel ñu ko defal moo tax tey ñu def suñu bopp ay kilifaam jëmm mm. waaw am na loo xam ne waratuñu te xalaatuñu see dox sax ngeen indi def combat bi def ko benn dër bi ba dër boobu sax daa gën a garaaw léegi <laughs> Pikine Parcelles waaw Pikine Parcelles moom dër bi est-ce xam nga ne yéen a remplacé Ama Baldé Modou Lo bi waroon am <laughs> waaw looloo tax keroog arène nationale mel yéen yéen comprendre leen de Ama beeg Modou Lo bi ni mu naroon feesee mm-hmm. yéen a ko bari de non billaay loolu moo tax loolu moo tax correct stade bi mun a ñàkk mel noonu quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax tamit ñaari xale ñoo doon bëri te làmb dañ leen di bàyyi xel. te ñoom defoon nañ face à waroon dugg ci biir stade ba ñëwuñu. yéen leen dugal ci stade bi <laughs> te amul xeex amul xuloo. waaw yéen yéen moo bëri. bisu keroog moom ñi mu dugal ci stade bi. bëri na ñoo xam ne tey mosuñoo mm. seetaan làmb. Modou Lo dafa ne woon ñu fa doon door a dugg xaw ma. c'est la première fois bu dugg mu fa ñëwee ñëw fa woon pour bàqu ñëw fa woon ngir kii mais mm. mais tamit loolu sant yàlla la quoi. Mm. Pikine parcelle moom. Mm. derby bi tàmbale ngeen dugal fa yeneen <laughs> autorité ay nit yu musul dem. musuñu dem sax ay làmb Moustapha Gueye ak nangam sax yéen leen fa dugal. dëgg la dëgg la beneen beneen beneen affaire bi aussi. Mm-hmm. may sant ñi nga xam ne ñoo tëggoon làmb ji. Mm. muy waa jàmbaar production. xam nga maa leen di sant bu baax di leen ñaanal. di leen wax ni bis bi ni mel ko rek ñoom mérité nañ ko. waaw jàmbaar kontaan nañ si yow de. no non ñoom mérité nañ. dañ laa nga kontaan nañ ci man. wax ji bari woon na trop. waaw mais wax dëgg fa neex yàlla xam nga jàmm rek. mais nice na ci jàmm lañ terminer quoi. nice na dëgg fa neex yàlla ak ñoom nice na. waaw non nice surtout maa ko mel ni Mor que parce que nag gars yi gars yi yi nag nañ def nang. Mm. parce que dañ nañ ñoom waa parcelle la ñu féetee jàppal mm. bàyyi. non féete mënu see ñàkk est ce que soq est ce que soq yëg na lool. est ce que senti mm. parce que man sama nijaay jibi joolaa bu doon moo tëgg combat du bëgg ma daal. waaw waaw comprendre mun na yor ay millions gis ni sama jarbaat war naa mën a wut licence di ko tëggal ay combat mhm. kum ma tëggal maag moom liy nekk ci xolam mooy soo ko am ndam mais ñaawul daal waaw mais ñaawul ñaawul voilà war a sekk ak man far mënta ñàkk mais ñaawul waaw surtout lu ñuy ñaaw ku mel ni moor mhm. moor moom moor tamit maa mhm. ndax man lu ëpp dañuy déggoo man ak moom dañuy wax whatsapp yu bari borom baax la moor borom baax xam nga borom baax la maa koy maa ngi leen ñaanal daal bis bii nii jomb leen ñu amaat yeneen te yeneen journée yu yu ñuy tëggaat yàlla na romb bii sax pare nga pour bëriwaat ak pour jàmbaar. non man pour bëree leen. non man jàmbaar lu rafet rek lañ sekk buñ buggaatee tëgg sama combat. nga duyaat ko ba mu fees. non man moom Pape Maguette boo bëggee dégg dëgg. Hmm. maanaam du ma nit ku saful dara. Hmm. du ma nit ku kenn bàyyiwul xel. Hmm. bañ naa ko ba promoteur bu may tëgg dama la koy wax avant nga may tëgg. man du ma bëre laam bu géey. non non non parce que gox bi ma dëkk. dañ maa yàgg bëgg yàgg teg seen bët ci sook ni suba day nekk champion. moo tax heure bu may bëree Pikine gépp ay génn ñëw taxaw ma. Hmm. sama combat Gamou Gueye AS Pikine da doon jouer match final. te terewul gis nga stade bi ni mu mel. je me rappelle bii passé AS Pikine jéewul gis nga supporteru AS Pikine yaag yi dëkk ba jàmm gën. Hmm. waa jàmm gën surtout taxaw nañ ma ci combat bu baax ñëw nañ ci sama combat taxaw ma bu baax ñëpp di ma ñaanal. Hmm. comprendre nga man du ma mbër moo xam ni damay bëre di xalaat ndax stade dina am ni wala am nit man mbëru amateur laa. te ku ci nekk li moom dama ko jox suma ma bëriwaatee arène nationale suba dama koy tëjaat. léegi làmb jooju jeex na wax nañ ci côté expérience beeg erreur yi nga def ci biir combat bi mënut a ñàkk il fallait que kenn nay def nii kenn def nee yéen ñaar acte un bi la nag acte deux moom day am <laughs> loolu moom allah kulli aale xaw ma soq mi ngi koy xaw ma ba xam franc mi ngi koy sóoraale mais jàpp leen ni gars lu ñu si yéen de beneen promoteur day bëggaat mu amaat bu ñu bëggaatee ko defaat. non waaw bor la bu ma ameel rek. Youssou Ndour de wéyoon na ko moog Omar Kane. xamoon naa daa mu daje xam nga xam nga parfois train. <laughs> waaw dina dajeeg beneen moroomu train am ñu dérailler raay bi. pour benn train bi mën a romb. instant <laughs> dañoo dérailler raay bi rek. ubbil ko après dañu koy seerawaat rek bu seera ñu dajawaat ci kaw. dañuy bëriwaat maag France ñu làmb. am na Modou Lo Modou Lo Balla Gaye hmm. Modou Lo seen Sène daje waat daje dajewaat yéen da ngeen di daje quatre fois yi yéen gars yi duñ doyal mooy soq fara rek soq fara billaahi mun nañ xëy suba bërewaat hmm. ndax àdduna doyaluñ sama combat ak moom day baax <laughs> yow mi yaa doyalul non non non man moom doyalu <laughs> ba mu ŋoyee la ne kii dii du ma bàyyi <laughs> fran daa ŋoy rek tëdd sa kaw waaw noonu la ni yée terrain bi bu jógee damay bu jógee loolu penalty la penalty la am rek dugal ko waaw comme comme penalty Sadio Mané final bi da ngay dugal de bu ko dugal rek tay du baax. non loolu saa yi ñëw rek laxas ko. saa yi daa ngoy rek jàpp. loolu la rek mais il est lu jommi. waaw mais dama jommi. ngaa ngoy de bi mu ngoyee ba téye moo ne oh. moom su ma yàlla rek moo ma tiim. Hmm. billaahi wallaahi taalaay li ma daaneel sax man damaa jaaxal. mais yëgoon ne yow yëgoon ne sa sa dara joxewul wala lépp. ñu ngi non fan dara joxewul man ma nekk ci làmb ji ambiance tribune bi. waaw xeex de te yaa njëkk a xeex bi ñuy def suñuy débat dépp kenn nit ñi gis maa ci nekk en cent pour cent man arbitre sifflé rek laa yàqamti woon waaw kon yëgoo dara non non non wax dëgg fa neex yàlla billaahi non combat moom ku ko seetaan xam ne du combat mystique non non non donte sax waañ ngeen mystique mais ci biir géew bi moom làmb lañ fa gis kenn jàpp ma te ñëpp dégg nañ te ñëpp fenn foo xam ne tey hmm. sentir naa fa faiblesse sama hmm. yaram wax dëgg fa yàlla ñëw naa soq bi war a ñëw moo ñëw na bis bu ma war a war a ñàkk la léegi sook dégg naa ñetti combat de sook fi mu nekk nii mbër yëpp yow la ñuy laaj cartouche ba nekk ca France mi ngi lay laaj. Mhm. nee na day ñëw am te nee na yow la bëgg a bëreel. <laughs> keneen nee na yow la bëgg a bëreel keneen nee na yow la bëgg ah looy bañ si cartouche cartouche dafa liggéey de. cartouche waaw champion la de. ay la yor de nee dafa nekkoon si ay tolof tolof. te nee seetaan na la. boo nekkee ci tolof tolof nag da ngay moytu ki bees la. <laughs> ci bees la kii door a bees la waaw xam kii jooy te noppeegul nga bëgg ñëw di ko cuqaat nga bëgg a ñëw bëgg mais ñeneen ak ñeneen ak ñeneen koo wax mu ne la soq koo wax mu ne la franc koo wax mu ne la soq koo wax mu ne la franc ba tey jii nii dégg naa fi ñetti mbër yoo xam ñi ngi dox seeni i combat kenn ki kan la sama copain boroom géeje waaye guy gi keneen ki kan la ñett am nga ñetti adversaire yu ñuy dox actuellement mën nga ma si indi ay leeral waaw loolu alhamdulilah loolu sant yàlla la te li nga wax noonu am na parce que bi ma bëreeg léegi moom wax dëgg fa yàlla keroog rek bi ma bàkkoo ba pare waxuma la bi may bëreeg. bàkku rek ma bàkkoo ba pare. am ku la woo si pet billaahi wallaahi taalaay su ma nijaay jot na ñetti proposition hmm? comprendre nga mais nag benn amagu ci taxawaay bu leer. Hmm. ñi ngi fi lim nii yëpp wax dëgg fa yàlla woo nañ ma. Hmm. wax nañ ma seen tur kenn laa déggugul muy cartouche. waaw <laughs> comprendre non cartouche moom man la ko wax. <laughs> waaw non promoteur waxu ko. cartouche man la ko wax. waaw waaw man la ko wax ñoo déggante téléphone. dëgg fa yàlla woo nañ ma ñu ngi may proposer ay adversaire mhm. képp ku ci dogal ni moom moo ma war a tëgg. guy gi bi proposé nañ ko. non waaw. akkan kan. nañ ma ko ñu proposé nañ ma guy gi. proposé nañ ma Modou Anta Modou Anta. Zarko laa dégg gum nag. Zarko Anta moom dégg Zarko guy waaw Zarko ak guy gi laa dégg gum. am bu ay grand bi daa nekk si yoon nag de. waaw mais garaawul amul. mais man xam la mooy sam problème combat boobu. man dama dig dama dama màggee Pikine dama juddoo Grand Yoff màggee Pikine man affaire boobu man yéen boo leen di bëri du fi nekk damay génn. waaw mais loolu. damay dem gàmm bi ma toog foofu. loolu moom garaawul quoi parce que li tax garaawul. mooy Zarko champion la ndaanaan la wax dëgg fa neex yàlla te bëri naag champion yoo xam ne man soq bëreeguma ak ñoom. Mm, mm, mm, te rêvé pour bëreeg champion yooyu. ndax ku bëreek Sa Thiès rek. waaw ndaanaan nga ci làmb. ñu ne déet ñu ne bëri naag guy gi rek. ndaanaan nga ci làmb bëreeg Siteu ndaanaan nga ci te taxu ko ñàkk position am ci làmb. bëreeg bàyyi ma njoon bërki moo njaay daan ko mbay guy gi daan ko bëreeg bàyyi ma njoon daan ko. nga kon teg na ci làmb preuve bu leer nañ. mais mi ngi ci yoon de. waaw mu ñaar ñu nekk ci yoon bu ñu dajee dañuy bëri rek kenn dem comme Sokh ak Franc fi ñu daje woon rek. Hmm, Sokh ba Zarko saay saay rek. non saay saay la champion la nag. Boucher nee na ko xaw ma lan moo la indiwaat ci làmb mais lëjal nga ñu. waaw mais garaaw keroog mbëtt la jàpp rek topp bu waaw waaw parce que gis naa ko yooyu yëpp gis naa ko que moom farceur la benn. Ah, instant waaw farceur la de. parfois dama koy gis sax day toog di wax ci signature ba nit ñi jéppi ko fekk li muy wax wër na maam Serafal tollu ko fenn. gëmu ci dara. parce que après bu ngeen dajee da lay nuyu. gëmu gis benn image boo xam ne hmm. stade la dafa ñëw ba ci mu kanamu Baye Mandione rek sukk ci kanamam. jéggalu waaw waaw mm-hmm. Mm-hmm. kon kooku ay waxam. Mm-hmm. jarta jël à 100 pour cent perturbateur la rek day perturbé xam nga def ko def ko événement te du événement moom mm. champion la. Mm. wax dëgg fa neex yàlla nangul naa ko champion man bu ma làmb booleeg moom damay bëreeg moom. mais ñaari combat yi moom. sook mm. bu ñu la joxoon benn ban nga ci jël soq guy gi soq zarko. bu ñëw baax ndaw coow lu rëy boobu mu de mooy ëpp coow Franc. billaay bi de ubbi bi la woon rek mais bu ci ñëw dina bëri coow est-ce que duñu la jox ñaari avance yëpp benn yoon non garaawul amul problème ñoom ñaar ñëpp ay champion lañu wax dëgg fa neex yàlla bëgg naa bëre ñoom bañu ma bëre ak ñoom bëgg naa bëre ñoom wax dëgg fa yàlla hmm, guy gi moom daa nekk si jafe-jafe sama làmb daa toll foo xam comme li nga wax kee rek ku nekk ci ay tolof tolof nga bëgg ñëw bëgg ko cuqaat guy gi nekk si ay tolof tolof nga bëgg ko cuq kee nekk ci yoon perturbateur élément perturbateur ci làmb ji nga bëgg dugg ci moom ñooñ ñëpp bokk nañ ci ñi nga xam ne doon naa rêvé pour bëre ak ñoom suñ demee tey ba làmb dox sama diggante ak ñoom sant yàlla la. te Pa Maguette. Hmm. dafa am benn wax boo xam ne dama koy wax. Hmm. ma nekkuma fi pour di wax. Hmm. pour nit ñi kenn yërëm ma. wala kenn jàpp ni soq mii li muy wax da koy wax pour teg xel xale laa. dama am fu ma jëm ci làmb. dépassé naa si fu ma ci wanee ñàkk fayda. ñooñu nga may wax ni képp kuñ ma ci làmb booleel. fulla ak fayda laa koy jëlee ak bëgg laa dante dinaa liggéey lu la war a dante dinaa ko def. waaw ndax Pikine dama leen ameel bor bu rëy te ku ma ci jël dinaa faj boor boobu ci moom. soo combat bi passé amoo surpoids pois poids ëppul non non maa ngi nii toog ñu toog di waxtaan. non non yow bii nii nii yow combat bi ak nii day ute de moment de récupération loolu quatre jours non récupération saa yi boo récupéré yow suba ba tey yaa ngi nelaw boo récupéré ñaari fan <laughs> forme bi day commencé di grossir forme boobu ak bii bokkul de dégg naa dégg naa ko doon wax naan open press bi form bi soo ko indi waaw ak jour combat bi bokkul ba fa naa bàyyi bàlla laa dégg mu koy wax. Hmm. mais man open press beeg combat bi. trois jours sorantewul non non sorantewul. foofu yokk poids. man même poids laa fa gis. yokk poids xaju fa xanaa nga ñëw ba ci géew bi nga nga sekk. xam nga luy problème bi. wala sekk bi nga sangoo mu jaaxle. <laughs> <laughs> xam nga luy problème bi. Eh. gars yi dañuy jaawaatle. Hmm. xale buy daj ay coono di màgg. Hmm. ak mbër moo xam ne day entraîné te mun a màgg. xam nga am na mbër yoo xam ne bu ñu doon entraîné 30 ans même forme. duñ màgg mukk duñ màgg mukk waaw duñ màgg. comme man sama genre man maa ngi entraîné rek un an. mënul fexe ba màgg xeetu mbër yoo xam ne. Hmm. bu ñuy yëngatu tuuti di def effort bu ndaw sax dañuy màgg loolu. ay xale suñu moo leen koy jagleel hmm. ak tey ci famille bi ñuy bokk. Hmm, man ma papa bi ma jur boo boo ko xooloon. da ngay xam ne ñii c'est normal ñu nekk nit yooyu màgg. Mm, mm, mm. parce que suma pap bi ma jur macha allah ñun dëkk ba sax bu ñu fa demee barki alxuraan dañ dañuy wax ni ñu yéen kenn jëlu ci seen pap dañ leen tuuti dañ ñuy xas. dañ naan dañoo tuuti. parce que suma papa macha allah ni mu meloon. kon loolu sant yàlla la. man Paa Maguette damay entraîné. man li gars yi di wax nii nii nii nii ñi ma xam dëgg xam nañ ni Sokh du caaxaanee làmb damay entraîner ba tegoo coono yoo xam ne sax attanu ma ko. rien que ngir bu ma ñëwee ci bis man lii sama defet man ci làmb xam nga mooy lan. ma ñëw si meeku ñuy laam-laame naan fii fii màgg naag fii màggul fii feebal naag fee feebal. est que du li nga doon daj moo tax nga gëmoon ne nga ni jour ba Franc dina ma jox cër. wallaahi li nga doon liggéey lool dong la tegu ko woon ci leneen. waay waaw tegu ma ko woon ci waxi kese. tegu mm. ko woon ci ay gàllaaj mm. tegu ma ko ci dara man. damaa xam nga liggéey la. li ma liggéey pour. ba yëg ne góor ni góor yàlla moo liggéey affaire combattant la. foofu laa doon waxee mm-hmm. mais waxeewu ma ko woon ci benn man li ma gëmoon mooy li nekk ci man. Mm. ma ko exploité damay daan ko dul. parce que nee nga ko respecté wu ma joxu ma cër mais jour ba di ma jox cër maanaam dina liggéey ba am doole. te dinaa bëre ba nga jox ma cër ni xam ne mbër ñëw na te mbër bëre na. te pourtant noonu la demee. jox na ma cër ci biir làmb ci mm. ndax tey bi ma xoolee. Mm. Franc defu fa lenn luy wane ni tey jii nii damaa manqué soq de mm, wala xool naa soq bii nii parewul. xaaral jox na la cër moo tax mu daan la. waaw parce bu la joxul woon cër da moom moom. maara day taal waaw jox na la cër man li ma bëgg doomu aadama yi xam ko def ko ci seen bopp mooy. soq caaxaanewul làmb. parce que li topp suma ginnaaw noonu du ay caaxaan. même donte bu doon dama doon caaxaan sax. jamono jii nii amul làmb bu may caaxaane parce que tey li topp noonu suma ginnaaw mm. ñaata mbër ñoo fi nekk toppul seen ginnaaw moo tax nag soq ma ñaata place feesal na ko benn nit di dugg ay nit taxaw ci dañoo yokk service d'ordre tamit waaw li fa nekkoon dafa tuutoon mais après dañu jékki-jékki gis beneen sorte mm. li ma bëgg xam mooy soq xale la mm. xëy na nag mun na préparer combat ñàkk ko parce que ndam soog moomu ko. Mm. dama ko wax ci dernière jàkkaarloo bi ma bi ma gars yi jël see géej. waaw ma ni leen digguma kenn ndam. Mm-hmm. digguma ko benn supporter ndax moomu ma ndam. Mm-hmm. yàlla moom moom ndam. Mm-hmm. li may sàkku mooy suñu borom defal ma jàmm ak taw tawféex ba bis ba mu may ma ndam moom mi ko yor. mais sook bi nga doon dem jour làmb ji sentiroo woon ne làmb ji cóol na. non non amul woon amoo benn gàllankoor amoo. <laughs> ay traces yoo xam ne feeñ nag nga ni tey nu baax ci buntu kër gi. waaw yéeg si oto bi toog. pick bu américain yi laa yoroon pick bu mag. ba yéeg ci oto bi oto bi di ralentir ma yéeg si toog oto bi ne kamaj fay. <laughs> une heure de temps ñu nekk ci karaj karaj dugal caa bi nanguwul dugg ci neemaanu oto bi. billaay barki Seydina Mohamed pick up bu américain yi nga xam ne lu ciy waaj a paan sax compteur bi. dala koy génne boobu dara nekku si. ma yëg ci oto bi toog oto bi ne kamaj fay une heure de temps ci biir oto bi koñ bi ñëpp ni tekk fees dell bi ñëpp ni tek tiit <laughs> ñu ni ciol na gars yi dem indi beneen 4 x gaare ko suma rakk bi soq bu ndaw boot ma eh. yóbbu ma yëg ci oto boobu damaa yëg ci oto boobu oto bi tàkk eh. da ngay wax rek bañ barke alxuraan bi bañoon bi bañoon ni du tàkk damaa yëg dugg ci bee ñu dugal taal mu tàkk ñu continuer hmm. dem bi ñuy dem ba yegg boobu mbaa topp la rek boobu topp sama ginnaaw warul woon dem nag nekk fii la na <laughs> <laughs> ngeen waroon yeb bi lépp ñu dem ba yegg ci estation syndicat bi oto boobu bañoon <laughs> mm. saaraan mbëkk oto bi ma nekkoon ko kay waru leen topp mbëkk oto bi ma nekkoon rës ba ñun ñëpp ñu ko maxoo daal ci delluwaat wax naa la waru leen topp ma ni leen billaay faran day bopp rek waaye stade bi nañ ma fa gis comprendre nga yàlla sutura ñu ñu dem ba stade ñu ñëw ba stade tamit buntu stade bi pour ma dugg rek pamag def naa fa une heure de temps et demi ndax la nit ñi bëri. nit ñi téemoo CNG bi gars yi. waaw maa ngi lay gis nga naan bés bi sama bés la. doo leen def nànk boobu maa lay gis. parce que boobu waa CNG leen def leen nànk. daw nañ xoj ma. yooyu yëpp. Mm. xëy na si ñu defet la. Mm. siñ buy mais man gëw ma ko woon nag. Mm. franchement parler. mais boobu dafa mel yaa ngi doon dalal xelu gars yi. nga leen bés bi sama bés la. waaw parce que boobu yëpp boobu yëpp li ma yëg suma yaram mooy man xam naa ne bés bi maa ngi ci te man bu ma buñ ma jàppul ci gàllaaj du ma neex daan rewul ba tey maa yegg suma bopp dara manqué wu ma santiruma sama jëmm fenn man comme santiruma sama jëmm dara rek dara xewul hmm. parce que tey man la ñuy préparé waaw man la ñuy yóbbu sama bu la dara dalul rek sawa bu ma dara dalul rek sawa man li ma jàpp ne ay oto yuy fayak ak yooyu daanul kenn ndax préparé naa fi komba génn oto bi paan ma génn yëg ci beneen oto dem daan dem dem daan waaw waaw man loolu laa gëmoon xam di santaat ñëpp hmm. surtout waa diaspora bi keroog liñ jënd ci perpévi rek kenn xamul nu mu toll man woo nañ ma man waaw man woo nañ ma yàlla daa dogal. ñu bari woo nañ ma. diaspora bi yàlla xam na ni billahi sama téléphone bi bu ma la si woonoon numéro yoo xam ni. Mhm. mat nañ presque cent numéro yoo xam ne ay numéro yu ma xamul la. doon ñii ay Brésil. Mhm. ñii ay Allemagne. ñii ay Angleterre man woo nañ ma Argentine woo nañ ma France ba Amérique. Mhm. ba France ba Canada barki alxuraan karim. su ma la génneelee appel yi da nga naan loolu mënut a nekk. kon diaspora bi ñu ngi ñuy bàyyi xel. ku ci mel ni suma frère Mbaye Toldo. Toldo tamit di ku baax. Toldo yónnee na ma xaalis ci combat bi. ak suma benn gaayan bu ñu naan baara mhm. baara bu Amérique mbër yëpp xam nañ ko mhm. grand bu baax la ah, moom mais Sokh yow tamit yónnee na ma saa dama naa waa affaire de xaalis mm. Sokh looy indi ay arsenalu mystique bañ lay dagg non Sokh bi yaa tooñ waa CNG de bi moom CNG laa faral moom asaawaay ah, ah. CNG bi moom dañoo def leen daa ah, déedéet déedéet man maa bañ mais déedéet gars yi wax leen ci bokk <laughs> si yow nga ñëw arsenal géew bi dafa fees dell siwo paan ak lan siwo paan raakool <laughs> raakool sax indi nga ko. branché si bitim nga ko branché si benn camion. xanaa xamoon ne Pape Maguette. waaw man ak Franc. waaw même bu doon dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo yàgg ci mystique bi sax. waaw mënoon leen baal ñu ko war a baal. waaw waaw parce que xam nga lu tax. ñaari mbër yu am discipline. te ngeen fi def lu kenn deful. arbitre yi yàgg ngaa gis. làmb am ñuy daw di koj. adversaire yi naan kii yemal fi kii yemal fi. Franc da doon dox di ñëw ba ci man may dox di dem ba ci hmm. moom. arbitre yi sax buñ bëggee dox suñu diggante. man maa leen non non garaawul kii moom demewul noonu. Hmm. lamb bii moo ñu boole rek xuloowuñu xeexuñu. te neexal arbitre yi mujj yi dañoo dem taxaw fële di ñu seetaan maag Franc parce que xam nañ ni ñaar ñi violent wuñu kon mënoon nañoo xool ci loolu jéggal leen ñu jéggal ñu loolu te xam ñu ni tamit waaw tolérance day am xam nga xaalis boobu noonu ñun ñun jëluñu ko pour def ci leneen bu ñu ko jëlee fi ñu dëkk lañ koy li ñu la dagg nag bëriwul de ay trois cent mille quatre cent mille bëriwul quatre cent mille daa bëri moo yéen ba mu ah, waay baax na garaawul ah. def naa ko addiye def ko addiye rek def naa ko addiye rek def ko addiye <laughs> amul benn problème yàlla baax na mais seen yee mënoon ngeen leen baal ñii liñ def ci làmb ji ay exemple lañu te te combat derby lañ doon bëre parcelle ak Pikine parcelle ak Pikine ba pare feesal dell stade bi règlement règlement la dëgg la dañ ko bind si këyit ba manager bi nangu ko mbër bi nangu ko xam ne su ma defee li lii moo ma siy fekk mais parfois nag day am tolérance quoi parfois je vois que ne mun na am tolérance parce que ay xale lañ te ñu ngi ci yoon ba pare ils ont prouvé que ne làmb ji nit ñi dañu war a nekk ay exemple nekk ay responsable parce que yéen yàgg ngeen ko wax Bira Sène ak Thiam ne ñun lii lañ bëgg ay mbër yu toog di joxe ay exemple face à face nañu ba ñibbi dara xewul service d'ordre sax mënoon na bañ a ñëw ci face à face mais def nañ ko ba pare def loo xamante ni histoire la ci làmb ji dañu feesal arène nationale ba service d'ordre tëj arène nationale kon boog mënoon na am benn tolérance ci seen ci seen côté man pour man boog sama xalaat alors léegi nag yaa ngi si si wàccaay bi léegi yaa ngi reposé wu di waajal def sa dernier face à face instant yi nii moment de récupération nga nekk quoi entraîné woo yaa ngi yaa ngi yaa ngi kii quoi yaa ngi noël quoi. waaw ba pare beneen affaire bi. waaw face à face bi ñu def 2STV. Hmm. dama taxaw ni samay supporter hmm. képp ku ci Franc romb. Hmm. nga saago ko baalu ma la àddina ak alaaxira teel a dànkaafu samay supporter xëy na moo tax keroog làmb ji sedd. moo tax xëy na amul benn problème. Hmm. kon am na yenn yoo xam ne ñoom mun nañ ñu ko jéggal. Hmm. te xam ne ñaar ñiy doon bëre defuñu dara lu yàq làmb. Hmm. te waxuñu fa yit dara loo xam ne day yàq làmb wala day influencer nit. mais garaawul bu fekkente ni dagg nañ ñu ko te dagg nañ ñu ko amul benn problème. garaawul loolu du dara parce que. accepté ñun ñoo ko mun a am. mais mënoon leen baal waaw mais garaawul waaw beneen affaire bi comme fi nga wax noonu wax dëgg fa neex yàlla bi mu bëree benn fan laa noppal. benn ma ni nga benn fan laa lundi bi nga noppalu lundi bi laa noppalu ba leer ma ni man defuma dara mardi ma xëy dem entraînement te nii may wax ak yow nii su ma paree damay dem entraînement parce tamit dafa am su may rakk yoo xam dañoo am combat te suma combat dañ si doon jàpp di daw guddi di daw bëccëg di contact ak man kon tey man sama combat mun a jàll ñoom seen combat des may dem di di nelaw sama gor sa sama ngor sax mayu ma ko waaw su ma jugee fii léegi damay dem entraînement may dem contact ak ñoom jàppale leen comme niñ ma doon jàppale ci suma bis parce que fii waaw waaw parce que fii tamit nit ku nekk bisam la am. muy bis bu mag ba ak bis bu ndaw beeg mbër mu ndaw beek mbër mu mag bee ci bokk yem. Mm, mm. bis bis la rek. Mm. bisu soq ak bisu mbër bi gën a ndaw ci écrit bi ñoo yem. tey man li may sentir ci sama bis mbër mu ndaw mi mu noonu moom lay sentir ci bisam. tey bu ma ko xeebalee rek. mun na jur leneen. moo tax tey chaque jour damay bëgg ni ma booy di taxawoo ma leen taxawoo noonu. biñ may toppee ma leen di toppee noonu. parce que c'est pas la fin du monde. waaw loolu. doo yéegal sa bopp quoi. non non non non. ñaata nga financé si ci <laughs> en tout combat bi moom billaahi hmm. bu dee dëgg rek moo tax may wax hmm. li ma ci def sax fayuñu ma li nga ci def fay la ko billaahi wallaahi lu la jaral loolu si àdduna yow it non damaa xam combat bi ma doon bëre la boo ko laajee Franc même sos la lay wax non Franc moom li mu def ci làmb ji non boo ko laajee même chose Franc lu mu mystique mystique Franc lu mu waaj waaj waaj bii moom dafa waaj komba bi bi may dem Maroc hmm. damaa génn ànd ak suma rak mhm. dagg billet vol aller retour dem mhm. biñ demee foofu di profité di gërëm waa Maroc yëpp mhm. suma grand frère buñ naan gawsu moo ma yóbbu woon foofu dalal ñu jëlal ñu résidence bu mag ñu nekk fa mag suma rak fayal ñu salle bi gën a seer ñu fay entraîner. teg ñu ci condition yu bien manqué wuñ dara am médecin bu ñuy suivre rek lépp. ba ni ñuy ñibbisee. lépp moo ñu ko resal. ok nañ ci. xaalis bu bëri. bi ma ñibbisee rek rek rek rek diggante booba combat bi rek li ñu ci dépense ci xaalis am ay million ay ñaata ay dix cinq. non mat na ko. mat na dix. mat na ko wallaahi mat na ko parce que xam nga lu tax préparation làmb dafa metti non combat bi moom te booy bëri combat capital doo bëgg a bàyyi benn détail foo xalaat fu ñuy ñaan loo rek dem nañ. dem nga fa mais yàlla moo dàq ñaan ñëpp. Mhm. te benn yoon lay joxe. Mhm. bis boobu bu rëddee ni Franc moo war a am ndam. soq fi mu dem yëpp di représenté dara parce que mooy. borom kun fa dem ngeen Inde. non di yegg ñu Inde nag bëggoon nañ fa yegg mais xëy na dañoo amul moyen yu fa dem. <laughs> si magicien yi ngeen waroon dem. non bu ñu demoon ba Siin. Hmm. waaw boo que loolu la yàlla dogaloon bis boobu. Hmm. bisu le 19 juin jour comme ni ko waxee. waaw waaw mooy li may wax rek bu demoon ba fu ñu mën dem ci àdduna bisu le 19 juin arbitre la Franc di la arbitre la yëkkati loxoom parce que loolu la yàlla bind. ci dajewaat bi. nangu nañ ko man de dajewaat bee ma jaaxal. ah boobu rek muy <laughs> boobu tonnerre lay doon. boobu boobu dina mel ni Sénégal Égypte. mën na nekk nañ liggéeyaat rek bañ naan si qualification mondiale bi mooy match boobu noonu laser yi génn. <laughs> <laughs> di yónnee ay laser dana génn waaw maa koy jënd sax. mais a Franc du gis dara wépp pep pep pep champion la nag champion eh, la de. ku mu daan nga xam ne kii champion. champion la ku dajeeg moom nga xam ne ki champion la. champion bu mag parce que da ngeen ko da ngeen da ngeen meloon ni. làmb Yékini ak xawma kan. Yékini Bombardier. yooyu moo raaroon ci làmb danger yooyu ngeen fi indi. moo raaroon ci làmb. waaye làmb jànk. Ah, que moom bu ko mooy lamb jànk nag. bu ko neexoon mu jël keneen. mais da ngeen ko ñeme. ay jàmbaar dëgg ngeen yàlla leen yàlla jàppale. et je te souhaite du courage. Euh, xam naa ne amoo dara looy rëccu. mi ngi sa ginnaaw. mi ngi sa ginnaaw li ci sa kanam ngay xool. moo tax sànq ma ni la waa ji woykat bi dafa ne. yaa yaa daan yaa daanu mel ni yaa daan. Mm. daf mel ni dafa mel yaa daan parce que comme li nga wax làmb ji daf leen ubbil ay porte moom am na ci ay porte yow mi daanu am nga ay porte kuñ dem ba proposer guy gi kuñ dem ba proposer Zarko ñoo xam ñoo la jiitu ci làmb bi rek ay champion yu mag lool sant yàlla tam moom tamit na nga ko ubbil yeneen i bunt yéen ñaar ñëpp yéen ñaar ñi xam la laal ñaanal làmb ji yàlla na leen jik amin amin parce que da ngeen marqué histoire Gris Bordeaux Eumeu Sène ni ñu defoon bañ ne moo nekkoon combat bi dàqoon ah yéen tamit da ngeen defaat loolu marqué seen empreinte ci làmb ji yàlla leen jik pour seen carrière mu ubbil ay bunt yu bëri ba ngeen demaat nag ba ñu weyaat xamoon naa ne daañu daje mhm, yàlla mën na nekk yàlla nañ ko fekkee ñun ñëpp di sant suma grand boo xam ni hmm. loxoom musul jug si man hmm. muy Diaz AS Pikine hmm. di suma grand bu baax ku ma yéene ku sonn ci man sax ak mortala du ñu ngaaka di sant tamit suma ñaari seex yi suma ñaari seex yi boo déggee ma koy wax mooy Ama Balde ak Boy Niang. léegi may ma foofu. waaw may ma foofu. fa laa doon bëgg a tëjee ak yow. dafa am leneen loo xam ne da ngeen ko def. nee naa ni ngeen def ci bés boobu muuree te nit ñi deen ko waxtaanee nag chaque làmb da nga jiboolewaat waa Pikine yëpp Boy Niang Ama Eumeu nga dajale leen. te lool c'est rare ñu gis ko nooy wax ci lool waaw Paa waaw loolu ñun sant yàlla la rek Paa Maguette ñun ay xale lañ. Hmm. ay xale yoo xam ne dañ ñoo yar. ñun suma yaay dafa teel a def si ñun éducation. dañ ñoo yar fi ñu war a yaree deuxième bi ñuy ay doomu joolaa. man suma papa joolaa la suma yaay joolaa la di profité di nuyu suma waa dëkk. waa Kabrousse yëpp maa leen di nuyu. ba Cap Skirring ba Jembereng ba Yaal. këru xëy. xam nga foofu yëpp ñu ngi leen di bëgg Guinée Bissau. xam nga ñun ay doomu joolaa lañ. ñun lu rafet lañ xam. ñun dañ ñoo yar ci éducation boo xam ne kuñ gis dañ la war a jox cër xam nañ comportement tamit bu ñu war a comportement ak suñuy grand frère hmm. ak suñuy petit frère hmm. xëy na coow li bari woon na biir Pikine mais alhamdulilah la ñuy wax hmm. xëy na ci sama combat la tombeel ba ñu mën a dajale ténor yëpp ñu nekkandoo benn ba léegi nii sax kenn ki moo la woo téléphone waaw billaahi gis nga booy ñaa moom doon woon nii naa ma mbër foo nekk parce que xam nga heure entraînement bi jot na. xoolal loolu rek xam nga loolu sant yàlla. xoolal loolu rek te ñuy ñaan yàlla suñu borom mm-hmm. lafal ñu cat. Mm-hmm. ba benn problème bañ see am. Mm-hmm. xam nga di ñaanal sumay frère nag suma frère yëpp. ko ci mel ni Moustapha ñu ngi santaat ñëpp. képp ku ñu jàppale ci bis bi rek. ñu ngi lay sant. di nuyu maam Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam. di ko jaajëfal bu baax. di nuyu sëñ naa borom Daaru Musti. suma xarit suma lépp suma sëriñ suma lépp. waaw di santaat waa Daaru Musti bu baax. ndax gis naa seen taxawaay ci combat bi. di sant ñëpp. di sant suma mafia bi yëpp ñoom xaadim Diall. xam nga ñoom Ahmed Ñangoor gi ñoom Moussa Ndiaye gars yëpp maa leen di sant bu baax di nuy suma benn grand. bu ñu naan Daouda borom wakaam grand bu sonn ci man. di nuyu waa Kaolack. Jakarta yi ñëpp chauffeuru Jakarta yëpp maa leen di bëggee di nuyu waa marché ba yëpp marché bi yëpp. di ci jiital suma grand Thierno Niang. xam nga suma grand bu baax la Thier Théer mm. maa ngi koy ñaanal bu baax suñu borom defal ko jàmm ndax daf may taxaw bu baax a baax a baax di sant waa Gambi nag waa Gambi maa ngi leen di sant bu baax di nuyu suma papa booy melax di nuyu suma papa Jinne Mori ak suma mafia bi yëpp booy yëpp di sant nag suma benn goro suma goro la mm. mais goro la boo xam ni <laughs> mooy loolu muy siin caam ah. suma xarit la suma waay la suma rakk mooy soxnaam hmm. mais nit ku sonn ci soq la ku sonn ci man sax billaahi hmm. wallaahi hmm. waaw suma waay la nag loolu yàllaa ko def depuis bi muy nekk tu tànk ba yàlla dogal tey mu nekk suma goro maa ngi koy ñaanal moom it ndax nit ku sonn ci man la ak suma xarit isma borom bambay di nuyu suma mafia bi yëpp yëpp yëpp bàyyiwuma kenn gars yi maa leen di bëggee yéen ñëpp man maay sant kenn sa soxna laay sant man xam naa li tax ma ne kay sant maa ngi lay sant bu baax di courage gënal jàpp gënal jàppale kii foofu laa yem ak yow nag waaw. waaw euh, maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ndaw maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax sama wàcc bees Sénégal mooy caméraman bees bi dama ngay wutal tour nag spécial après maa ngi koy gërëm bu baax ñu gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm man gis nga ak les lutteurs man ak ñoom ñoo bokk génération ñoom ñëpp sumay gaayan lañu ñii dañoo fekkante ci làmb ñi dañoo ñëw fekk ma ci dañoo dem ba dañoo miinante. ñoom ñëpp sumay gaayan lañu ak ñuy gaayanoo nag ku nekk nag dafa am sama façon gaayanoo ak yow mais ñoom ñëpp ñoo bokk làmb ji ñoo bokk génération benn xaalis la ñuy dundee mooy xaalisu làmb moo ñu def tey li ñu war a def tey li ñu nekk tey ak lu ñu war a nekk ëllëg te fierté la ci ñun te moom la ñuy défendre jaa ngeen jëf ba beneen yoon incha allah